Wardini nekk candidat nekk maire sortante en même temps et vraiment bokk ak yow coalition taxawu Dakar mën nañ ko waxee noonu euh, yombul woon naka nga ko dunde woon ak nan nga ko gisee woon. Euh, xanaa sant yàlla parce que nit ki da ngay wut wante lépp lu ngay wut dangay ñaan yàlla mu doon sa jiglaay. Mhm. te mu ànd tamit ak wér ak wérle. fekkee tal ak dal. Mhm. donc ñu ngi delluwaat di santaat yàlla bu baax a baax. ngeen may ma tamit ma nuyu suma yaay bu baax ci di madame le maire Soham El Wardini di ko ñaanal tamit yàlla kattanal ko yàlla may ko wér ak wérle yàlla tamit euh, guddal ay fanam. Mm-hmm. Euh, di ko ñaanal tamit euh, tawféex ci lu muy dox nii ci jamono yi. Mm-hmm. pourquoi nga xëccoo ak moom sama yaay ji pourquoi nga xëccoo ak moom xëccoo alors que moom personnellement nee na ay yoon bàyyi na nga dem donc loo woon aussi xëccoo bi mënoon na ñàkk seen diggante. d'abord ay yoon bàyyi na yow nga dem ko yombalal na la ko Pape wax na ko en 2014 wax na ko wax na ko expliqué waaw Pape xam nga yow yàlla may na la xel nu ñuy déggu tamit euh, yàlla baaxe na leen xel mosoo gis fenn ci àdduna ci politique ñit di gagné dara di ko jëbbal nit amut dëgg bi mooy lan mooy 2014 dama doon xëccoo ak suma yaay di Soham El Wardini ñu bokkoon suñu coalition Benno Siggil Sénégal man ma nekkoon PS moom mu nekkoon AFP mhm. ñu dem ci xëccoo bi ci premier tou mu jiitu mu jiitu daanaka lu ko desee woon pour mu gagné mairie bi su ma juumulee ñaar ba ñetti voix la woon ma topp ci ginnaawam wante amuloon majorité absolue ñu dem second tour te loolu mooy dëgg ñëpp ko fekkee l'histoire est là ñu dem second tour yàlla buy buur bu mag ji may ma ndam dañu xëccoo ma am ndam ñu delluwaat ci 2014 ma nekkoon maire sortant su ma yaay bii mu ngi may déglu di Soham El Wardini parce que damay wax yàlla tax man Barthélémy Dias man maa ko teg tête de ci lan ci ndigalu Khalifa Sall ma jël suma beneen yaay bu ñu doon wooye maman Raki Wan bokkoon ci LD ci ndigalu xalifa Sall ma jiital ko tamit mu nekk tête de liste proportionnelle ñoom ñaar la xalifa Sall bëggoon gis ci mairie de Dakar man buy wax ak yow nii tey du ma conseiller mairie de Dakar te dinaa la wax dara 2009 nekk moon tête de liste 2014 nekk moon tête de liste musuma nekk tête de liste ma benn xarit di ma tooñ di ma ne lu tax saay booy xëccoo doo nekk tête de liste. da ngay ma ne ko dama sonn ci sëriñ yi gars yi tête de liste la ñuy yóbbu ci gaañ ñu leen di xon ak di leen di galgal te dama sonn ci loolu. Mhm. mais pour gagner élection jamono yooyu soxlu moo nekk tête de liste. c'était une petite parenthèse hein, parce que nous mhm. sommes des Africains. wante au-delà de ça je considérais que comme Khalifa Sall mooy suma kilifa mu sàkku ci man ne ma dama bëgg kii di Soham El Wardini. comme du wut mairie de Mermoz Sacré-Cœur dama bëgg mu ñëw mairie de Dakar dama ko soxla ci bureau municipal noonu laa ko investir parce que loolu mooy dëgg maa nekkoon mandataire su ma neexoon ma defee ko neneen wante man yàlla bindeewu ma noonu soo am El Wardini Barthélémy Diaz man maa ko investir tête de liste euh, majoritaire ma jël su suma beneen yaay bu ñuy woy Maman Racky Wane ma investir ko tête de liste proportionnelle te ñoom ñaar ñëpp tey ñu nekk ay conseillère municipal te ci conseillère municipal boobu la Soham El Wardini Dia ba nekk maire de Dakar ñu koy jaajëfee di ko jox tamit waayam mhm. loolu mooy dëgg bi wante di wax ne ni que da ngaa gagné mairie jëbbal ko Barthélémy Diaz loolu wax dëgg yàlla du wax bu dëpp ak dëgg d'accord mu nekk maire sortante au moins am am am bilan boo xam ni war na ko mën a teg ci loxo Dakar waaye pour mën a est-ce que ëpp la chance bu fekkee yéen a bokk coalition est-ce que jàppaloo ni moom moo waroon nekk le le le la candidate plutôt de Yewwi que yow Barthélemy nga xam ni euh, tey ay programme nga mën a teg ay promesse nga mën a teg alors que moom am na bilan bu mu mën a teg jàppaloo ni ci logique pour logique moom moo gën a mérité pour nekk candidat ville de Dakar bu Yewwi ci ci Dakar jàppaloo loolu yow. Papa Ngagne politique amul logique politique réalité moo am mooy benn beneen bi mooy lan mooy man naam dëgg la man maire bu commune maire moo Sacré-Cœur la muy mairie bu ndaw. wante gëmuma que maire de Dakar moo ma gën a siw gëmuma que maire de Dakar moo ma gën a fës gëmuma que maire de Dakar moo gën a sax ci xolu Dakar waaye man mii di Barthélémy média su ma xalaat bu gàtt la wante lu ngeen xam ne ni mën naa ci sukkandiku di ay këyit président Macky Sall la may dégg waa coalition Yewwi Askan Wi ñu ngi may dégg ak ñi xam ne nii Sénégal. bu ma sondage. non bu ma sondage xam nga tax non na waaw non attends euh, xam nga pourquoi. xam nga xam nga loolu posé question émission bi. d'accord ok ok d'accord d'accord je vous en prie baal allez-y allez waaw allez-y. Pape mhm, mhm. xam ne ni amul sondage. que élection bu mel ni élection mairie de Dakar jarul ay dizaines de millions c'est de millions. amul kenn kuy mobiliser des centaines de millions di ko sànni ci mbalit bi dañuy dem élection pour gagner ñun demuñu pour euh, xëccoo ak qui que ce soit dañuy dem pour gagner le 23 janvier 2022 su ci yàlla àndee incha allah ci li ñuy sukkandiku nii di ko xool élection du am Dakar formalité mooy am dañuy dem pour formaliser suñu majorité fii biir Dakar at ngi nii. non ma ñëw rek s'il vous plaît non est-ce que mën naa répondre ma daaneel non non lay may non Pape la ñaan lenn rek laa la ñaan ci émission bi man ak yow dañu xamante ay at ci ginnaaw. te xamante dama lay ñaan rek nga may ma répondre may daaneel dama ne États-Unis gënuñu Sénégal euh, Sénégal France gënul Sénégal dëkk yooyu dafa am sondage fii Sénégal peut-être yoon dafa tere sondage wante ñëpp ay sondage sondage at ci ginnaaw ñetti tur rek fi am moom bokk bosom bokkul non je suis désolé te ñëpp a may dégg turam musul bokk ci sondage yi loolu mooy dëgg bi maintenant nag yàlla mooy buur bu mag ji maintenant nag man waxuma ko Soham El Wardini du candidat bu valable wala bu crédible. d'accord léegi sondage ñu tekki ko mooy gisaane ah. liggéey la non non attends non mënoo ko tegle non non non xam nga non attends. non liggéey nga ma may ni la voilà d'accord alors xam nga aussi bugguma nga jël ay sondage def ko argument. voilà moom turam feeñul sa tur moo feeñ dama ne la moom dafa nekk mère sortante. bon am non mais am non moom moom mu mu am bilan. waaw au moins war ko mën a teg nit ñi gis ko. waaw mais est-ce que gënul gënul gënul gënul ëpp la ëpp la taxawaay pour vraiment diriger liste bi nga xam ne tey yow yow yaa ko diriger. comme yow nee nga sondage amut. non waxuma la amul non waxuma la amul parce que man gis naa sondage. non defal naa non man gis naa ko. mais bëgguma nga def ko baromètre. waaw maintenant dañuy bàyyi sondage. ok waaw maintenant dama lay laaj. yow Papa Ngagne journaliste wala doo journaliste da ngay def ay micro trottoir wala defoo ay micro trottoir yàlla baaxee na la sax ay yeneen plateforme de communication da nga ciy liggéey fii defuñu fii di wut qualif di wut ci cinq cent cinquante quatre maires ñuy laajte kan mooy gën ci maire yi defuñu ko fi Sénégal un site indépendant cinq cent cinquante quatre maires moom bokkul sax ci vingt premiers maires yi di Soham El Wardini je suis venu en deuxième position j'ai été mais il faut se dire des vérités man bu bugguma sori ci wax ji parce que Soham El Wardini n'a pas été retenu comme candidat donc sa ne m'intéresse pas dama koy ñaanal yàlla na ko yàlla may tawféex te di ko ñaanal tamit lu muy dox nii yàlla na ci gis boppam mais elle n'a pas te man du xaalis moo tax ma nekk candidat du jekk moo tax ma doon candidat du tour moo tax ma doon candidat liggéey ak pas-pas ak Pastef ak taxawaay moo tax ñu tànn ma te loolu mooy dëgg. d'accord alors mi xalaatoon nga tey ñu tànnoon ba Soham comme tànn ñu tànnuñu Barthélémy loolu nan nga ko doon xalaatee nan nga ko doon dundee. man nangu ko te moom mii. moom mii Soham El Wardini wax naa ko Sénégalais yi ngay waxal. c'est-à-dire nga wax rek. sa aqulay taala bu fekkonte ni choix bi ci moom lañ ko porté. dama lay poser une question soo am du candidat mairie mairie de a tey. non non xam nga waxuma. dama lay poser question mais non Yewwi laa la non non je parle de Yewwi. ak seen soutien soutien Khalifa soutien Yewwi tax may wax. est-ce que mën naa wax dara parce que wolof Ndiaye nee na saabu du fóot boppam. waaw. dama ne su amee tey un initiateur de la coalition Yewwi Askan Wi il s'appelle Barthélémy Dias ku mu neex loolu moo am ku mu naqari loolu moo pour lii la woon quoi lii moo nekkoon dama ne non non ini non non il faut ah. qu'on se comprenne Pape Ngagne mm-hmm. suma objectif du mairie de Dakar suma objectif